nuyuwaat baax di leen siyaara diglu gi nga xam ne moom la waroon a diglu Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly nee ñu diggu nañ ko ba noppi ba noppi nañ ci ba nga xam ne daal ñi xam ne ñoo di ay avocat am dugal nañ li xam ne moo di demande de liberté provisoire ngir bëgg ñu bàyyi ko bu sukkandikoo ci libération online ki nga bi moo nga xam ne moo di doyen di daal pare na ci li nga xam ne moom la doon digloo di ko diglu ci a xóotal ci dossier bi laaj ko a a moom immédiatement rek daal réagir ñoom daal daal di déposer li nga xam ne moo di liberté provisoire ngir daal sàkku ñu daal di koy euh, bàyyi mu daal di mën a dellu ci këram fàttali leen nag moom dañ ko defoon mandat de dépôt waaye depuis le bi ñu génn ngir face au chef de l'État waaye itam division de fausse nouvelle xamal leen ne itam am na lenn ci kaw totee xibaar goo xam ne gis nañu ko ñuy wax ne daal Serigne Abdou Mbacke Bara Dolly may nañ ko liberté provisoire gis naa ko ci kaw totee xibaar genn gu ñuy wax Sénégal waaye nag daañu ko topp ba mu gën a wóor ba xam loolu c'est vrai ou pas li am daal mooy avocat moom sàkkul nañ ko liberté provisoire gis naa itam nag benn kër xibaar gu ñuy wax Sénégal bu wax ne ah, may nañ ko waaye daal loolu dañ ko toppaat bu fekkee lu am la moom incha allah dinañ ko jot léegi léegi incha allah